julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu bunt ci lislaam di xaadima rasulu Cheikh Ahmad Bamba di am mbégte lool teew bii ñu teew tey laaj Alaaji Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Bachir mu xaadima rasulu Cheikh Ahmad sang bi ñu ngi lay ziyaara di la jox sa wàccuwaay bu baax ah, ci turu mbooloo mi ñu àndal waaye mbooloo mi nag ñu ngi ci tàmbalee ki directeur mii nga xam ne mooy docteur Souleymane Soumaré ji la nuyu ak mbooloo mi mu àndal yëpp docteur Souleymane Soumaré mii bi mu jógee jëm si ci yow Mbacké tey jii dafa mel ni képp kuy wóllëreem di xaritam li cëpp teew docteur Souleymane Soumaré directeur nee na mi ngi sant yàlla mi ngi lay sant ndax daaw fii la màggale xam na it fa nga nekk ci njaareem ci ndigalul sa mag ju baax ji di xalif général kullu murit di sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg ci ànd ak nga nekk njaareem foofee mu teg la fa nga fay sunum sëriñ Touba bu wér di ñu digal di ñu teg ci yoonu siraatal mustaqim naa nattabliwu ba ñaan ga nga xam ne moom nga ko ñaanalal njiitu réew mi président ma Macky Sall jël ko def ko directeur office national féeti ci formation professionnelle di kër gu màcc ci jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi ci wàllu ñu am liggéey boobu cër nag bu ko président yëkkatee jox ko xam na ne dafa am wéeruwaay muy yow nga ñaanal ko te dimbale ko moo tax loolu njiitu réew mi jox ko mi ngi sàkku nga yokkaat ñaan yi ba yaakaar ji njiitu réew mi am ci moom ba fal ko yàlla yàlla dafa ko ci ndam ci barke Xaadimu Rasuul di la santaat bu baax ndax bi mu fi jógee fi yow dafa yokk te nattablewul ne ñëw géeti ñun ñu ànd ak moom ñëpp bu nu fi jógee incha allah daañu yokk li ko def nag mooy danga sax ci ndigal Mbàkke toog toogaayu Cheikh Mamadul Bachir Xaadimu Rasuul sa maam ku ñëw fi yow nga teg ko ci yoonu njub jaamu yàlla ak liggéey rek lañ la xamee ak jàpp sax jaamu kuy sa taalibe it ci loolu nga ko suuxat bu baax mu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàggal la fi yàggal fi sëriñ mun Muntaxa Mbàkke ci ma ànd ak wér yow daal Mbàkke docteur nee na yaay ab sagam moo tax lii ko président fal ba mu ko falee mu ne balay def dara di ci tàmbali dara day ñëw ba fi yow mi nga xam ne yaay kilifaam di buntam ci sëriñ tuubaa fa njaareem mu tàmbalee fi yow nga ñaanal moo tax nee na tàmbaleegul defagul dara dara dara ndax ñemewu ko te del ba fi yow ànd ak ñi mu àndal soxnaa ma nga nee soxna yaa ngi nii ñi koy jàppalee ngi nii Mbàkke loolu daal moo doonoon tànk yi di ñaan yàgg la fa fekk ca mu ànd ak wér ñaanal soxna Daba Mbàkke it mu yàgg fi lool ca ànd ak wér ndax sunu sag la Mbàkke loolu daal moo doon loolu am na ay xéewal yu mu ko booleel ma nga nële ah, bu noppee du ñàkk nga yeble nu gis ko waaw ca xeeb ko nag lool waaw ca xeeb ko lool waaw nee na mu ngi ñaan bu déwénee ni mu ko defee yàlla na ko defee lu ko raw ca ànd kook ñun ci yàgg la fee fekk mbari kon ñu ngi wàcce foofu sunu kàddu di jéggalu bu waat bu baax a baax ndax lim ñu wax lépp mbàkkee dañ cee am yéene ndax fi wax ji jëm ñun mooy moom la ñuy wàcce moom la ñuy wàllee mooy sunu bunt ci Sëriñ Tuubaa jërëjëf Mbàkke jërëjëf sëriñ bi nee na gis na lépp xam na lépp dégg na lépp xolam sedd na guy nee na bàyyi na la ak Serigne Touba mi nga xam ne moo tax rek nga def ko nee na yàlla la dolli dolli la mboolem ñi ngay àndal dolli ko président Macky Sall defal ko jàmm nee na jërë ngeen jëf tubaarkàlla yàlla yàlla fay leen yàlla nga gën a man jërë